ay ca mbokk yeeg xarit yi teewlu solution TV solution info mbégte la ñuy am comme nañ ko baaxoo di defee altine bu jot ci waxtu wi lay ngeen di am l' émission des émissions ñu fas yéene ci ànd ak Alaaji Sanjoogu Meng ginnaaw nag bi ñu nuyoo mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel fii ci biir réew meeg bitim réew noonu la ñuy xusee dem ba ci wànnu ceskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm ñaanal ko bu baax a baax sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu jëfal ko njaboot gi wasaare ko ci biir këram uh, tey nag ci altine ji comme ni ñu ko waxee rek uh, dañuy ànd ak alaaji uh, ci l'émission des émissions mu nuyoo ak internautes yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel solution TV alaaji ñu ngi lay ziar. ba jigéen ñi ngi lay fay am ci yow mbégte kontante nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu nekk ci biir réew bitim réew waaye mën a ne. waaye di nuyu bu baax sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoul Ahad Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu baax sëñ xaadim ne ca kër gaa njaboot ga yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke ma Makarim wax la nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñu nekk ci technique bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm voilà macha allah. merci beaucoup euh, Laaji euh, Moodu comme niñ ko baaxoo di defee rek dañu leen indil li xew ci penc mi rek te yi di ko joxe comme seen i xalaat euh, ci actualité yi am ci biir réew mi tey nag daañu jël nag ay kàddu yu nga xamante ne ni kii di ma jàmbal Diagne yëkkati woon na ko balaa ñuy amal élection législative yi jëm nag ci kii di premier ministre bi di Ousmane sonk nee na doxalinam rek. dafa mel ni rek euh, jamono ja muy opposé wu kàddu yam doon yëkkati ba léegi ci la nekk mu mel ni dafay fàtte ni moom premier ministre la mi ngi euh, tuumaal di génne ay scandale yoo xamante ne ni boobu ba tey mënul joxoñ baaraam tuuma ne kii la ndaxte à chaque fois rek su waxee scandale duñu wax ak kan la ci mbir yi ba tudd ci nag kii di rakku Alioune Sall ak 1000 milliards yi nga xamante ne nii moom la ñu fi mujjee dégg. ne joxe na ko fi comme ay xibaar dañu ci ñëw ci kanam ci nu mu gën a yaatoo keroog ci aljuma ji fële ca jàkkaarloo ñu invité woon na kii di Boubacar Camara mi nga xamante ne nii mi ngi soutenir kii di Ousmane Sonko ci élection yi euh, comme niñ ko amalee démb rek fépp ci biir réew mi. moom nag euh, dafa am mbégteel ci émission ba na mu doxalee rawatina nag ka ñu jëloon mu ji Ahmadou Ba nekkoon candidat ci élection yi waaye nag ba ca noppee am na ak tuuti gàllankoor ak jëmm ji di bu euh, Badara Gajaga dañ leen ko dégtal ci ni mu gën a yaatoo rek àllaa ji njogu nga indi ci xalaatam ñu jeexalee ko ak sàmm sa kàddu mi nga xamante ni nii ñoom dañu jàppoon ni dañu am ndam ci élection yi ñu jëm waaye mel na ni nag loolu dafa daal di naax saay ndaxte démb bu ñu seetloo nag nag ba ñuy joxee résultat yi rek dañu daal di euh, génn kenn ku ci nekk ci leader yi la daal di félicité ñi nga xamante ne ni ñoo di euh, parti bi la di Pastef nga xam ne daanaka fépp ci biir Sénégal daanaka euh, gagné nañu mu nekk nag ay question yoo xamante ne ni ba ñuy dem ñoom si seen biir dañoo coaliser woon waaye nag dem bi résultat yi génnee da nga gis kenn ku ci nekk rek daa daal di dem bind message yu boppam daañ ci ñëw léegi àlaaj ji faram fàcce ko ba mu gën a leer incha allahu dañ koy daal dooree nag ak kii di Madiambal euh, Diagne kàddu yi mu ci woon jëmale ko ci kii di Ousmane euh, Sonko ñu dem teewlu ko te dellu si wax dëgg yàlla Ousmane Sonko moom. taa tàmm waxi milliards. Euh, moo fi waxoon ne Aliou Sall jël na six six mille milliards moo ko fi waxoon mujj ay waxi kasaw kasaw tuddatu ko. waxu mille milliards yi ba ko fi waxee ba ko nit ñi wanee ni ko loolu nekkatul wala loolu xel mënu koo nangu tuddatu ko. ñoom bu ñu jëlee. ay marché public yu Sénégal fonctionné fukki at ak nangam ñu ni six cinq mille six cent milliards la jaarul yoon kon lu ñu fi mas a dox jaarut yoon Ousmane Sonko dafa nekk premier ministre ba nga xam ne ba mu nekkee opposition lam doon wax moom lay wax bu mu nekkee premier ministre loolu lay campagne tey fi mu toll nii bu ñu fekkee ñi fi nekkoon ay sàcc lañu wala mënuñu woon Sénégalais sanction nañ leen teg ko fi jox ko lay ngay kon li ñuy xaar xaaratuñu wax ju bari dañoo xaar mu jëf te juróom-ñetti weer ak ngi nii mu toog yor nguur gi dafa gu fi dara lu Sénégal yi mën a gis kuy def campagne électorale bëgg a laaj majorité da naan Sénégal yi kat nii laa bëgg a doxal fii laa ko bëgg a jëme waaye diw sàcc la wala xaalis ba dem na wala lañ defoon baaxul lañ defoon baaxul sànq nañ leen kooku wax ji nañ ko weesu nañu weesu wax jooju te wax luy defar réew mi tey fi mu toll nii foofu lañ koy woo foofu la ko ku ni Amadou di woo foofu la ko ku mel ni ko keneen di woo Ousmane Sonko na dimbali Sénégalais ni que toog fi di yuuxu naan nañu sàcc nañ sàcc bu na loolu dem na sax na jël ñëpp sàcc yëpp wala ñi mujj ñu sàcc mu tëj leen ca kaso ba ginnaaw moom mooy tëj mooy tijj mu tëj leen ca kaso ba xool ba xam loolooy defar réew mi am looloo koy jubbanti ci mi ngi noonu jërëjëf Alaaji Modou Diouf ak topp Top Alaaji dégg nga kàddu yi nga xam ne moom ma jàmbal yëkkati na ko mu mel ni nag nee na daal Ousmane Sonko boobu ba tey dafay tudd ay scandale yu nga xam ne non seulement amul preuve di wax euh, ñi fi nekkoon dañu sàcc alalu réew mi te mënuñu fexe ba jàpp kenn te aussi mi ngi laaj majorité mu mel ni nag sénégalais yi tey jox nañu ko ko euh, kon bu ñu taxawalee la ñu bëggoon mu mel lu ci gën a euh, fës rek bokk na ci haute cour de justice boobu ñu doon wax dana permettre pour lii nga xamante ne ni tudd nañ ko fi mu jëm ci ay scandale peut-être dañu ko régler incha allah. Euh, xam nga Madiambal dafa ñëw ne usman Sonko li mu daan wax bi mu nekkee opposition loolu lay wax. bi mu pouvoir kon wax ji soppeekuwut dane woon ñii ay sàcc lañ daal di yoon nguur gi ne ñii ay sàcc lañ. posture opposant ak posture premier ministre. waaw ba tey xam nga dafa amut euh, foofu la tappale gi ne. xam nga mm, ñoom majambal ji dañ doon manipuler ci jamono bi muy wax lii jamono jooju pour sénégalais yi nga xam ni comprendre uñ ñu jéem a jaxase seen xel ne leen xool leen waa ji pourtant de da leen a waxoon ne leen bu ngeen leen fale fal ngeen leen ñi ngi nii ba léegi ñu ngi continuer di wax lañ daan wax mm-hmm. te pourtant dañoo war a jëf dañu xam ni ñoom mënuñoo jëfagum ñoom majambal parce dafa am sàcc yoo xamante ni dafa am foo leen war a mën a àttee ñoom sàcc yooyu loo xam ne boo ko taxawalut mënu goo ko mënut sotti léegi nag ci sénégalais yi nga xam ne comprendre ñu woon loolu ñooñu lañ doon manipuler pour xamal leen ne leen gaa yii de laajoon nañ leen te bi ngeen leen joxe ñi ngi nii defuñu waaye dañ fee nekk di wax léegi jëf ji ñëw incha allah léegi ñu commencé jëf lu jëf rek la doon xaar. bàyyil ba ñu installé assemblée nationale ba def li nga xam ne moom la ñu war a def yi ñu war a indi coppite yi ñu war a indi ak yi nga xam ne moom la ñu war a dugal bañ def ko ba pare bu boobaa danañ xam ndax danañ jëf wala duñ jëf mais ci période bi nga xamante ne bii ci lañ jot nguur gi maanaam dafa am luñ leen jox am loo xamante ni bii dafa desoon ci loxoy ñeneen ñoom ñu xam ko parce que desoon ci loxoy ñeneen moo tax ñu daal di dogal yi ku ne gis na fi ay mbir yoo xamante ni bii nguur gi bëgg na ko. ñi nga xamante ni bi ñoo nekkoon assemblée nationale lànk ne loolu du fi amee te mënutoon a am parce que ku ne seetlu na ni wax nañ fi ñëwee pour orienter budget bi ñu lànk ne duñu ko def c'est parce que lan nee nañ Ousmane Sonko moo leen wax wax ju leen naqari duñu ko duñu dem di voté loo xamante ni bii daal euh, luy jariñ réew mi la ñoom daal loolu seen yoon néew ci ñoom euh, duñu voté parce que kii dafa leen war a wax lu leen neex ñu wax leen fi ne leen. conseil économique kii bii na fi jóge ñu daa daadee lank ne du fi jóge mu am yor ba noppi nag wëlbatiku ne dañuy sax far daaneel gouvernement bi na nasaxal gouvernement bi mhm. yooyu yëpp nag bi mu amee tax président Diomaye daa day jël ay dogal yoo xamante ni bii tey moo ñu indi ci élection yi nga xamante ni bii moom lañ jóge démb loolu xam nañ ko joom mais duñu ko wax dañuy jël li nga xamante bii dañuy fexe manipuler ñi nga xamante ne bi xamuñu loolu ñu fexe leen lool mais nag sénégalais yi dañ leen a montré que ni leen lii ngeen di wax ak yi ngeen di defe ni defe ni xamuñu ko ñun xam nañ lii lépp lan la te dinañ leen ko wan di set démb la di set sénégalais yi génn nañ wan leen ko ba mu saf sàpp loolu moo ma neex ci peuple Sénégal da ñëw yor say média di manipuler defe ni mën nga leen a mm. orienté sénégalais yi di la dégloo xol bu naqari mais duñ la wax dara dañ lay seetaan xam nañ ni bés boo gis bés lay xaar bés ba bu jotee ñu def seen warugar bu ngeen xëyee tey bi ñu xëyee tey ñoom ñëpp tey dañu taxaw jébbalu ah non di dañ cee mënul dara de. <laughs> tey moom journaux yi moom changement mais dañ cee mënul dara c'est que journaux yi ñoom ci seen jëmmi bopp. Hmm. bu ñu soppeeku dañoo wax li am rek. tey non li am lañ wax mënuñoo wax leneen lu dul lii. par rapport ak vendredi mu ngi koy wax nee na amul programme. Hmm. Euh, journalam bi xëy na nee na ñi politique ñëpp ci ci ci campagne bi amuñu programme. mu dëggal ko ci vidéo bi non non xam nga mu ne dafa wax ne. nee na yi candidat yi kenn amu ci woon. moom xam nga moom moo amul programme ba noppi bëgg a wax ne ñun ñëpp a ñun ñëpp a yem amut bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër. Mm. sénégalais yi dañoo déglu kiy wax ak ñoom dafa am ñeen ñoo xam ne nag amuñu problème ak sénégalais yi ñoom Sonko lañ amal problème Sonko lañ doon waxal. Mm-hmm. sénégalais yi nag Sonko di wax ak ñoom démb résultat yi génn. mooy wane ni senegale yi déglu dañ Sonko te dégg dañ ko du dëgg moo tax ñu def li ñu def du dëgg ñii nag nga xam ni Sonko lañ doon waxal Sonko moom benn carte rek la yor te boppam la koy dugalal du dëgg dëgg la maanaam bañ leen Sonko Sonko du nitu dara et cetera Sonko nii Sonko naa Sonko nale wax ju ñaaw ju ñu yëkkati teg ko ci deru benn nit mhm. ci réew mi sénégalais yi ne leen faale seen wax yi ngeen di wax ci diw ñun diw la ñu gëm diw la ñu àndal diw la ñuy voteel parce que yàgg ngeen fee nekk depuis des années di jariñu diw ci lañ gis sunu njariñ du dëgg donc sénégalais yi def li war a def donc ñuy félicité waat encore une fois peuple sénégalais ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw nañ ko démb wane waat seen bopp encore une fois wane nañ ñi kenn mënu leen a manipuler donc manipulation yooyu nga xam ne xam nga c'est que ñii dañu dem ba amatuñu benn crédibilité ay Madiambal Mbalak consort gu mel ni ñoom la daw. la daw. <laughs> génn na. <laughs> loolu de xam je sais pas ba <laughs> xale yaa ngi koy tooñ de ci ci ci ci réseau ah, yi. en tout cas daal mm. euh, lu mu mën a am mm. euh, daal en tout cas bu yow xam ni moom. mbir moom danañ ko jël la bokk. incha allah moom xam naa assemblée ba moom. bu bokkul ca eh, xanaa. lii moom danañ ko lijjanti yëpp. incha allah incha allah incha allah rabbi yàlla baax na. Mm-hmm. na yàlla mottali yéene bi. Euh, ñu dem nag ànd ak kii di Boubacar kamara keroog nag ca émission ba lee di jàkkaarloo lañ ko dalaloon waaye nag mel na ni nag concept ba na mu mujjee daal neexu ko ba mu jur coow nag ci digganteem ak kii di Badara Gajaga ñu ànd ak Modou Diouf mu dégtal ñu ko ñu dellusi. ay la xanaa nga dem euh, euh, ñooñu nga xam ne ñu ngi lay xaar euh, ba léegi nii ñu conclure rek ak ñi nekk ci plateau bi bu campagne bi ku ci nekk en deux minutes bu dee da ngeen am message boo xam ni seen ay militants la seen ay waa kër la comme di wala aussi de manière plus générale sénégalais yi lan ngeen leen di wax Thierno en deux minutes comme ça bu wax waaw boo bëggee ñu reprendre ordre bien ah, amul problème dañu doon doon def tuuti rek vous avez commencé l'émission waaw avec plus d'une heure et quelques waaye ça c'est vrai. ngeen annoncé ku nekk cinq minutes. waaw waxu leen Amadou Ba. waaw ngeen dugal ko ci émission bi. waaw jox ko interview. waaw deux personnes interview mu jël temps bi ñu waroon jël. waaw amul problème ah léegi amul problème loolu loolu c'est une injustice. Hmm. ñun tàmm nañu injustice. mais lii vraiment moo tax. ngeen di jox occasion. pour mhm. ñuy ŋàññi presse mais xam nga tamit. yow yaa ngi yow au yaa ngi fi toog président. excuse-moi nga ñoom nekkuñu fi. booy reprendre ce tour. waaw amul problème xam nga ne temps bi dafa arrêté. waaw amul problème chronomètre naa temps yéen ko jox ça fait plus que cinq minutes ñun ñëpp. amul problème ñaata temps lañ ko jox xam naa yor téléphone. non defal naa ko ñaata temps nga ko jox dernière intervention. interviewée c'est quatre minutes seize. Ah. onze sans compter son intervention. quatre minutes onze sans compter son intervention ma ne. toog fële yóbbante galgal kubul làmb mm-hmm. mu yore téléphone kële yore appel vidéo kële mm-hmm. yore whatsapp ça mm-hmm. ne changera pas les choses soyons justes si on veut la démocratie léegi nag yow euh, euh, maa lay ba Badara Gaye habillé par xaw ma kat yow bi ngay wax dama foogoon ne benn liste nga représenté ban li nga représenté chroniqueur nga wala il faut rester à sa place da ngeen di des seen place vous êtes des chroniqueurs des journalistes ay ci mi ngi noonu alaaji euh, dégg nga euh, li nga xamante ne ni rek ñaawlu nag ko ci doxalinu mission bi euh, mu mel ni daal am na lu bari loo xamante ne ni am na ci biir te xamaluñ ko ko woon mu nakarlu ko waaw xam nga parfois man dama koy faral di wax sax ñenn ñi léeg-léeg nga dem ci bërëb yow da ñëw ba yegg si moo xam da ngay jënd wala ba da def dara yow ñëw nga ba yegg si léeg-léeg mais dañuy privilégier parfois ki nga xam ne moo nekk ci téléphone bi naan la kii ci téléphone bi la ne xamuñ ni yow li nga def moo ëpp nekk ci téléphone parce que déplacé nga ñëw nga ba yegg si perdre sa temps lépp nga kii ko mais ñu bëgg a jox priorité ki nekk ci téléphone bi loolu nag baaxut rawatina bu ñu tollee ci situation période bi donc am na loo xamante ne bi waruñu woon a dugal téléphone man jàpp naa ni Amadou Ba bu fekkente ni dafa bëggoon a ñëw war na mën a ñëw toog ci palaato bi. Mm-hmm. daa wax ak Boubacar Camara parce que Boubacar Camara kilifa la et puis euh, borom xam-xam la yor na fi ndombal tànk bu ne ci réew mi donc kooku bu fekkente ni dafa am lu mu bëgg a wax war na mën a ñëw jàkkaarloo moom moo tax Boubacar Camara ne ko yóbbante galgal ubbul làmb mm-hmm. defe naa ni ubbul làmb ji mm-hmm. bon. wax na ak Badara Gadiaga euh, parce que gis na ci moom ni kii kat dafa am fu mu féete ba am nu mu doxalee Badara gajaga tontu na ko ci biir kii bi dégg na gis naa benn kii bu ñuy partagé mu wax ko ne ko yow mi nga xam ni da nga wax président ne mënul day jàng stagiaire et cetera. ko ci ne ko dañ lay yónni. xale yi lay yónni. xam nga. xam nga xale dafa am niveau boo xam ne bi xale amatu fa mooy ñàkk xamu bu Badara Gajaga dafa war a xam ni buñ naan jomaay père de la nation maanaam mooy sunu kilifa ñun ñëpp kilifteef comprendre nga mm-hmm. bu ñee kii mooy le premier ministre du Sénégal kilifa la mooy seen kilifa ñoom ñooñu ñu mm-hmm. bëgg ko ak ñu bañ ko kilifa la comprendre nga kooku dootut âge kontatut ay kii xale la ak kii mag la loolu foofu kontatul bu président Diomaye demee fii ci kër diine yi da nga gis ay mag ñoo xamante ne bi ci suuf la ñuy toog mu toog ci kaw. évidemment. parce que foofu nekkatuñu ci wàllu ay at. loolu mooy ñàkk xamam xam nga Boubacar Camara loo ko mën a waxal gis nañ ko euh, élection 2019 mu ànd ak coalition Ousmane Sonko mu ànd ak Ousmane Sonko dem ñu daal def seen coalition. 2019 ñëpp xam nañ ni bu doon Ousmane Sonko dugaluñ ko ci galgal yi Boubacar Camara day doon nekkaat ci coalition présidentielle bii ñu génn waaye Boubacar Camara tamit bu ko neexee ci jamono jooju nga xam ni moom mi ngi wut nekk candidat ñu daal dee indi jomaay moom bu doon Ousmane Sonko du wax loolu. mais Diomaye te moom it day wut foofu mën na dugal ab coup mais tere wut ni bi nga xamante ni bi tamit yëf yi jeex na delluwaat na ca la mu xam xam na ni ñële la gën a jege que keneen ku mu mën a doon ci langue politique bi ba noppi nag di ko def def bu xamante ni bi def bu am solo di ko def sans benn arrière pensée ci li nga xamante ni bi moom lay def. nee na moo fi pousse lu woon élection yi ba dara loolu la ko. waaw parce que da ne woon pour Ousmane Sonko dugg na yegg tamit ci wax ji. parce que dafa wax ne élection yu fi am te Ousmane Sonko bokku ci élection yooyu mënut a jàpp ne yu kii la nañ fexe donc buy booy sosal nit tamit ci plateau waxal yeggal ci li nga xam ne moom la wax parce que daneen nañ pousse élection yi pour Ousmane Sonko ñu xool nu mu mën a def ba mu bokk ci élection yi loolu la waxoon na yegg tamit ci wax ci tamit na wax li mu wax na ko yeggale parce que lépp leer na parce que kenn mënutoon a def ay élection gagné te Ousmane Sonko tegula yëfi sa gañe nit ñi mën koo nangu buñ demee tey bañ ne président Bassirou Diomaye Faye c'est parce que Ousmane Sonko moo ne voteel leen diw nit ñi gis ni kat jomaay mii ku ko voteel voteel nga sonk nit ñi dem voteel ko du dëkk loolu yàlla moo ko ko may te Boubacar Camara ku ko nangu la parce que waxoon na ko laataan dara di xew du dëgg donc euh, euh, ñoom Badara Gadiaga yi seen yii nga xam ni moom lañ nekk di jéem a manipuler war nañu am gàcce ci li xew démb xam nga li xew démb boo defee ni politiciens yi dong ñoo ci war a am gàcce non non mais ces soi-disant chroniqueurs manipulateurs yi nga xamante ne bi ñoo doon jéema a orienté gis-gisu nit ñi di leen wax ne leen eh biteel bii du biteel de lii du biteel comprendre nga tuddee ko leneen ne boog moom la <laughs> yaa ngi dégg sénégalais yi xam nañ xam nañ ñoom li ñu gis lan la mhm. pendant tout ce temps ñi ngi doon jéem a orienté l'opinion opinion bi dégluwuñ leen démb dañ leen a wan ne leen xam nga ñoom dañu defe ne opposition bi rek la gars yi faalewut non non du opposition bi les soi-disant chroniqueurs yi nga xam ne dañ taxawoon di manipuler askan wi dañ leen a wan ne leen faalewuñ leen dégluwuñ leen donc képp koo xam ne yaa ngi doon yóbbante sa galgal di ko jaarale ci nii booy boo nga xam ne yàqu na parce que ñii seen wax doxatut boo seetee Yirim sekk léegi buy wax. ndax gis ni muy énervé mi ngi menacé waa ji de. waaw ni muy waxee nga xam ne non ni muy waxee maanaam léegi ni muy waxee di énervé wu moo lay wan ne la. ay waxam xam na ni ay waxam doxatut. Ah, nit ñi déglootuñ ko gaa yaa xam nga déglu la ak dégg la du benn xam nga nit ñi saa yu dégloo Yirim luñ ko kaañoo la ñuy wut. comprendre nga. mais dégluwuñu ko pour xool kii mais luñ ko kaañoo la ñuy wër. defe naa ni war na xam ni euh, nit ñi tegatuñ leen fenn loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li ne jërëjëf am na solo euh, kaddu yi ñu jeexale ko nag euh, coalition bi di sàmm sa kaddu démb nag ba résultat yi commencé di wàcc fépp ci biir réew mi ñu dem nag ba sentir que ni lañu bëggoon amuñu ko euh, gis ni nag Pastef daa naka rek euh, foo joxoñ rek ñoom coupe nañ lépp ci la ñu daal di euh, gis nag post bi njëkk mel na ni bu buggaan gay daani la daal di leen di félicité waxaat tax taxawaaye mag engagement am ginnaaw bi loolu Barthélemy Diaz yi tamit def na ko Pape Djibril Fall Anta Babacar Ngom alaaji nag question bi mooy ñoom bi ñuy dem dafa mel ni dañu àndoon nekk benn say tey jii nii su résultat yi commencé génn nga gis kenn ku ci nekk ci ñoom yaa ngi bindal sa bopp sa message pour féliciter ñi nga xam ne ñoom ñoo gagné est-ce que du euh, sama sa kàddu moom wanewul ay tànk loo xamante ne nii dina wéy di continuer mel na ni luy commencé naax say non non mais ànd aussi tamit. ah ànduñu de. dañuy parce que lii nga wax wane nii rek wan la ne la ànduñu te et puis boo leen seetee ñoom ñooñu kenn ku ci ne boppam la fi nekkaloon ci eh, yëf yi xam nga dafa cee am ñett ñoo xamante ne boo leen seetee ku ci ne dafa wane ni moom. Eh, kiyoom la nekkal moom chef de l'opposition. ku ci ne daf ci doon wan mbiru boppam eh, boo seetee. Mm. Anta Babacar bi def na ay publicité yu bari. est-ce que sàmm sa kàddu la defal publicité publicité yi nga doon gis ci YouTube bi ak kii. boppam lay defal publicité. publicité yëpp ci moom la jëm. yow yaa ngi dem élection nga def ay publicité yoo xamante bi fay lu doon lu du jeex ci publicité boo xamante bi ci sa jëmm ji la jëm. te da nga ànd ak. te yaa ngi nekk ci coalition. xam nga ni boo fekkente ni bi am nga loo xamante ni moom ngay kii kañ def leen publicité pour lool lii moo tax lii lu yàgg la yaa ngi dégg. Bougane ñaata yoon la fi def point de presse. Eh, waaye sàmm sa kàddu la lu mu wax. Bougane moom ci jëmmi boppam ba bañ koy bu mu voté ba pare bu mu génnee ne ngoon mbàcc yi la. déedéet Bougane moom ci jëmmi boppam bi mu bi mu bi mu def ñaata yoon la def point de presse boo xamante ni bii. moom mooy dem toog di def li muy def. mais boobu problème mu bakkelam ba la doon wax. Ah? bàyyi yooyu mais ay point de presse ak yooyu xanaa kañ ana gaay lu tax gaay yi doonuñu woon ñëw. mais parce que loolu ay mbiram la woon. ay non non non non seen mbir la kaay wax la bu ñu xasee ba ànd mbir yi sunu mbir la. Hmm. parce que ba ñuy dem dañoo àndoon. Ah, mais taxawu ñu dem bañ koy àtte it. yaa ngi dégg waaw taxawu nañ ko moo tax it bu mu ñëwee di def ay point de presse am ak di def yenn yi. donc jël na ay dogal yu bari yoo xamante ne bi même laataan sax muy dem Bakel ay dogal yoo xamante ne bi ay mbiru boppam la mais du mbiru coalition bi yaa ngi dégg boo demee ca teleem ba promotion Bougane lañ gën a def ko promotion sàmm sa kàddu comprendre barte Barthélemy tamit bi Bougane nekkee ci xat-xat muy lijjanti ci la cavalier seul la doon rek moom it fexewut ba orienté mbir yi ci jëmmi boppam. Ah, mais fu mu taxaw fu ñu ko dekkee micro dinañ ne nañ bàyyi waa nañ bàyyi waa ah. waaye ci biir loolu yow yaa ngi xëcc wax ji ngir mu jëm ci yow c'est lii moo tax Bougane bi mu bindee dem gars yi ne non Bougane est-ce li mu def war na koo def dañ li wax loolu nag dañu war a tamit euh, logique tuuti quoi est-ce que Bougane li mu def war na koo def. Bougane yàgg na koo def est-ce que li mu def war na koo def yàgg na koo def. Euh, def nañ ko ci yeneen façon. ak Pape foo ko yaa ngi dégg ànduñu ñoo ñooñu moom mooy ñi xam nga coalition bi dafa dañoo wane ñi am xaalis ñi amul xaalis moom dañoo topp ci ginnaaw rek xam naa ne cotisation kenn laaju leen ko. Ah, yooyu ku ci bu fekkoon bu raaw ñu am xaalis ñoom ñooy jiitu Pape Djibril moo jiitu Bougane waaye Bougane moom nee na soxlawul place comprendre comprendre comprendre ci doxalin yi ak kii. boo leen seetee rek da ngay gis doxalin yi dangay gis ñi am xaalis ak ñi yorut nu muy gis ni ñii yor nañ xaalis ñii yoruñu. ñan ñoo ñoom ñett ñooñu yor nañ. Anta Bougane Anta kii. ñee ñoom ñoo moom amul xaalis moo tax deful meeting sax. koogal Bart moom moo la Bart bu parce que Bart du bëgg a yenu lépp day bëgg gars yi cotiser te am na ñaam buy cotiser ñaar ñooy cotiser Bougane ak kii te Bougane gëmul ni affaire bi dina dem <laughs> bo bo Bougane du ci xaalisam parce que <laughs> xam na ni Bart. dafa war a nekk propre concurrent ci kanam. Hmm. ñoom ñaar il faut ñu jàmbaarloo. dëgg la Bougane gisoo ko ba mu taxawee fii buntu kër bàkk daan de Bart mii na ngeen ko sagal ci élection yi waxut na ngeen ñu sagal na ngeen sagal Bart. <laughs> yaa ngi dégg loolu moo leen Bougane moom Bougane moom dafa dégager responsabilité ci li xew bu yàgg. moom lii def cee pare gisoo ko bi muy félicité tudd na Ousmane Sonko Bart tuddut Ousmane Sonko. ok comprendre nga. waaw xam nga tudd na. gën naa euh, kii ak yooyu. wàccee waa Bougane ak Barth léegi tey jàmmaar loo ba démarré. non sañuñu loolu. baax na non non non loolu moom. Ah, sañu dañuy xëccoo di. non vraiment déedéet. dañuy xëccoo seen ànd gu rafet gi ànd bu ànd rafet na. Ah, ah, ànd bi ku ne boppam la nekkal. liñ ne waa ji naar ndax muus am na gànnaar mu ne waa waaye boppam la fa nekkal. ànd bi ku ci ne sa bopp nga fi nekkal. Hmm. Bougane boppam la fi nekkal. Eh, Anta boppam la fa nekkal. Cerno nag. ñooñu dañuy wëndeelu rek ñooñu moom wax dëgg fa yàlla xamuñu fu ñu ko Cerno ak ay page bi ñooñu moom dañuy wëndeelu rek ñooñ ñooñu dañuy politique yoruñu nit ñi bëgguñu leen xam nga c'est loolu mooy seen problème quoi xam nga c'est que boo yorut sax nit ñi bëgg la am ci yow eh, cofeel sax mu tane. mais dañoo yorut gars yi bëgguñu leen. comprendre nga. loolu mooy seen problème c'est que ñooñu seen carrière politique dafa war a arrêter. Hmm. dañu war a bàyyi. alaaji nee na moom la war ba du bàyyi dañu war a bàyyi fi mu nii nag ku nekk dangay dem bersa daara boobu non la dañ bàyyi waaw wala ñu dugg fi politiciens yu mag yëpp duggoon rek ko jox mu ne consultant la <laughs> politique ay consultant rek <laughs> mi ngi noonu ñu bàyyi la nga tàggatoo <laughs> waaw di joxante dig daje incha allah rab oh, yi beneen euh, beneen kii altine incha allah waaw di ko fàtt fàttali Moodu beneen altine moo di Diouf. <laughs> Modou Diouf. altine bi bu tay bi la. waaw. comprendre na non comprendre na. <laughs> mën na lu ne. mën na ko pression bee bëri moom moo di Diouf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi ñuy def ak euh, kii di Abdou Top suñu xulóowaale bi lay jàllu Serigne Fallou Gumba la di su di nuyu bu baax a baax euh, moom Mbaye Assane Mesere ma nga toog duñu suivre ak kii di Omar Gueye son yu bu Diop ak Ndeya ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp su koy mbaay itam ñu ngi koy nuyu ko ziyaar jaajëfal képp ko xam ne rekk yaa ngi ñu doon bàyyi xel ci jamono jile eh, jox leen dig daje beneen altine ci l'émission des émissions